Euh, Abdou Elinkine Diatta mi nga xam ni moo wàññeeku ñeenti at ci ginnaaw te ñëpp xam nañ ni eh, nuñ ko reyee. waaye nag gouvernement daf ñu ne woon dafa ne woon ni moom dafay mën a enquête dina mën a enquête pour xam effectivement lan moo tax deewu Abdou Elinkine waande ñeenti at angi nii moom moom France dañoo noppi. waxatuñu daara ci loolu. parce que ñaata nit Casamance la ñu rey rey leen ba pare ñu naan enquête enquête depuis Sioumay Mbadiatta ba léegi. ba ci gendarme yi ñu reyoon noonu. ñu naan dañuy def enquête waaye ba léegi France xa dem gisuñu fu ñu def enquête gisuñu ku ñu condamné.